naa la li ma xam ndax na lu dul diine ki lislaam lanu wax nekku ca wax ne seet ngeen entreprise boo xam ne ay ndaw ñoo ko samp ndaw yoo xam ne ay sénégalais lañ gëm seenum réew li am lépp ñu investir ko seenum réew tuddee seen bopp Touba Mercerie mooy doon ndaw yoo xam ne ñëpp c'est la famille gëm seen bopp di dem ba siin li seen client soxla ak Dubaï di ko voyager di ñëw ndax ñun suñuy client ñoy suñu fierté ndax liñu bëgg ñom ñun ñukay jox kon fu bagage rafetee rek sin wala dubai rek donte Angleterre lay doon danañ jël val fek ka fa indil ko suñu client ndax bu sañ sañsee ñu mën a xam ne waa fi rek la mburu muy xoyom xoyome gérant bi nak mom mi ngi Dakar am di moom moo nekk gérant bi waye ñun place bi ñu nek ñoo fi gérant comme niñ leen ko waxé ci commencement bi place lañu am ci Touba gi benn bi mi ngi centre commercial sëñ Mourtala gérant bi mooy Badara Seck di xale bu yaru bu gëm boppam nangoo liggéey benn bi mi ngi nekk centre commercial sëñ Fallou Mbadam Seck ne fa di jigéen gu man góor wax dëgg yàlla gëmul lenn lu dul five fii man maa fi nekk ñu gën maa xam ci ñas góor yàlla tigi waaw maa ngi nekk fii marché forot cantine 140 wax dëgg yàlla di bëggee clients yi nag bu baax dooleel nañ Touba Mercerie xam nañ li leen Touba Mercerie di jariñ seegu mercerie yi bari na waaye wax dëgg xam nañ ne Touba Mercerie qualité la ñuy jaay xam nañ ne Touba Mercerie moom lu seen client bëgg rek neem soob na suñ borom incha allah rabi dañ koy dem wuti jugo ñëw. jox ko seen i client ndax bu ñu jaar ñu xam ne Touba Mercerie moom tubaarikàlla moom mooy daggate affaire yi. bëgg a fii nii moom boo ñëwee ne marché forod laa jëm rek boo nee marché ogas marché forod ci biir marché ogas la nekk boo ne place su ñas góor yàlla tigi laa jëm. mën ngaa jël adresse yi mën ngaa jël 70 825 04 15 wala nga jël 78 320 32 wala nga jël 75 142 29 07 incha allah rabi boo ñu appelé rek 24 heures sur 24 ñu ngi fi benn pause rek la ñu am muy ajuma vendredi bu ñu julee takku timis takkusaan tisbaar ba pare rek moom dañuy tëj dem dalu ji samedi ñuy ñëwaat duuraat waar incha allahu rabi. Hmm. waaw maa ngi nekk ak sama booy bi waaw mi ngi nii ah kii mooy sëñ Moussa Ngeñ. Hmm. wax dëgg booy bu yaru la booy bu baax booy bu nangoo liggéey la wax dëgg yàlla sonolu ma ci benn côté heure bu ko fi bàyyee bu ma ñëwee ni ma ko bëggee noonu la ma koy defalee te xam nga loolu yombul ci booy mais maa ngi koy encouragé bu baax na ko na jàpp te lay bàyyi te xam ne fii mooy Touba Mercerie xale bu bu fi dugg rek incha allahu yi bu fi génnee xam na teraanga nga fiy génnaale nem soom na yàlla. waa Touba Médecins moom macha allah wax dëgg yàlla ah képp ku bëgg lu baax moom wax dëgg yàlla maa ngi lay tegtal Touba Médecins ñun tout le temps fii wax dëgg yàlla macha allah képp ku am xew daal loo mën a am lu mën a doon te bëgg lu naayat lu rafet maanaam bul xaar sax dawal dem Touba ki kii naay moo wax dëgg yàlla dama leen sant rek dinañ ko gërëm waaw ndax moom dañoo jàpp depuis 2014 ba léegi ñu ngi jàpp Touba Mercerie taw a bàyyi. Touba Mercerie di équipe dynamique boo xam ne ñoom seen liggéey bi ñu ngi koy rafetlu ba tax na ñoom loo fi bëgg rek boo fi ñëwee na ko am ci kàttanu yàlla seen affaire yi xewale na ba pare kuñ gis dañ la accueillir xoolal loo bëgg boo amul sax danañ fexe ba noo ko amee. ñoom daal fi mu toll nii moom yàlla na yàlla jëmale kanam rek. ñu fi bëgg ñëw daal ñoom. ah boo ngeen laajte centre communal Serigne Mourtada Kandil à 14 rek numéro yi 76 887 06 47 77 731 98 51. daal lépp liy dox si mercerie daal ñoom ñu ngi koy jaay daal moom wax dëgg yàlla lépp lépp lu bagage mercerie ñu ngi koy indi ñoom lépp li ñu koy jaay macha allah ca kaw ca kanam rek. waaleykum salaam wa maa ngi fay. ni que ni ñu la fekk fii Touba Mercerie. yaay seen mbokk. waaw fii Touba Mercerie sopp Serigne Saliou dañuy am xew ngente bu bëgg lu dawal gaaw ñëw seet si Touba Mercerie. rafet qualité na aussi bi xéewale na dana la jaay ak bon prix. daan la defal prix bu amul fenn defal la garniture qualité bu amul fenn ji piir strass line bépp xeetu garniture boo bëgg rek ko fekk fii Touba Mercerie yi. Euh, mu mel ne que ni Touba Mercerie ñoom dañuy jaay import export wala. jaay tous les garnitures. Euh, ñu ngi nekk Touba Mas Oka centre commercial Serigne Fall cantine

wax dëgg fa yàlla maa ngi remercier samay clients ñi nga xam ne nii taamu nañ Touba mercerie macha allah aw ma seen fay maa ngi leen di souhaiter di leen wax bonne et heureuse année di leen ñaanal xéewal jàmm santé tubaarkàlla aw ma seen fay daal parce que client dafa riche client dafa cher client daal moom amoo fayam képp ko xam ne nii bu amee yëreem du ci xalaat kenn du ci wóolu kenn ku du Touba mercerie vraiment aw ma seen fay mënuma leen lim nag bu may lim fii di fekk maa ngi leen di jaajëfal lu bare bare bari client client su ma ci sa wér gi kan moo waral. su ma ci sa mucc gi kan mooy kita ma xam ndax lii leer na ma lu dul diine ki lislaam lanu wax nekku ca defar ne doonu ca dara